may mun a laaj la nga ne troisième mandat mun a goo ci wax cela veut dire quoi cela veut dire que entre temps votre discours non attendez cest à sa discours dafa évoluer te man di tax nga ne may mun a daf la laaj ci troisième mandat nga ne doo ci wax ah. te man dama gëm ni hmm. entre la nga la ma la seetaan noonu fële saroo d'honneur ak li nga wax fii dafa mel ni audience bi moo tax sa discours dafa évolué. non non non yow tamit ba léegi. man na ma lay suivre xam nga déedéet waxuma la waxuma ci de. waaw mais sëriñ amoo sa xalaat. non non dafa évolué ah, ah, ah, waxuma changement mais dafa évolué. mais évolué mais doomu aadama day évolué. Mm-hmm. doomu aadama changement lu tax américain yi di ko. Mm-hmm. si aujourd'hui da nga toog fi nga taxaw nga taxaw rek gëm ne lii laa gëm non non man j'ai changé d'avis lan nga xalaat ci mbiru troisième mandat. ci mbiru xalaat ko ci lan. troisième mandat duma ci wax awma ci xalaat parce que. pour le moment pour le moment doo ci awma ci xalaat duma ci wax parce que ñu koy waxal waxagul. mais yow discours bi ngay wax nii mooy discours Benno Bokk Yaakaar. waaw. kon vous êtes dans Benno vous êtes proche de Benno c'est ça. alors ah, ñëw ñëw non élément de langage bi c'est un élément de langage Serigne euh, Serigne ñu ngi. Ah, c'est un élément de ah, langage. j'ai j'ai pas besoin de dire que je suis proche. wala je suis avec ou je suis dedans. wala entre Macky Sall ak Sonko ku ci gën a. entre Macky ak Sonko ku gën a jege.